بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مكي خريجي أم جامي محمد ما ديو ديلو سينا أك سيلو نينكو faral di def ci jamono yi ñàkkul sax ne xëy na bokk na ci yoo leen doore miin dañuy dellu si di waxtaan ak yéen ci mbiru Seyduna Limaam alayhi salaatu wasalaam waaye ba tey delloo ko rekk ci alquranul karim war ngeen a seetlu ne saa bu amee xew-xew boo xamante ne xew-xew la bu islaam waxal sax alquran taxaw na ci Mouhamadou Mahdi yu seen xarit ak seetlu danañ faral di ñëw taxaw foofu ngir delloo mbiru Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam si mbir moom nga xam ne alquran moo ci wax kon diine moo ci wax bokkul ak ay léeb ak ay lippoon ngir firndeel ni sallallahu alayhi moom lañu ñu penku moom la ñu yónni waat saw mu am nag ponku diine bu xam ne ci lañu jublu fiñ toll nii ndax desatul sax ñaari ay bés diggante fii ak tabaski te ku ne xam na ne tabaski dafa lëkkoo ak yow mu arafa ndax gannaaw bi nga jógee ci yow mu arafa yow mu naxar ci nga jëm muy bisig rendi yooyu te ca lañu baaxu di it ib ji ñuy waaye dem muy mbiru tabaski kon soo nee tabaski dafa mel ni dellu nga ci aji màkka te aji màkka dafa bokk ci pankonku lislaam yi alquranul karim moom moo ko waxal boppam wa atimul xajja umrata lillah ba fa laay ba ñu waxoon fii itam ca ba ñu tolloo ca jamonoy korite ne am na lëkkoo gu nekk diggante korite kon koor gi ci boppam ndax korite koor gu jeex la kon koor gi daf fi am ba pare korite gi doo am ñu waxoon nag ne am na lëkkoo gu fa am diggante koor ak korite ak yow mu arafa ak yow mu naar ca boobu jamono ñu ngi leen fa doon fàttali ne soo seetloo yow mu arafa lëkkoo na ak chahru ramadan ndax su fekkente ne yow mu arafa mooy juróom-ñeenteeli fan ci dhul xijja mi weeru at bi chahru ramadan muy weeru koor bi mooy juróom-ñeenteelu weer ci fukki weer ak ñaar yi fi yàlla suñu boroom subhanahu wa bàyyi kon dafa mel ni lëkkoo nañu ca juróom-ñeent kii di juróom-ñeenti li fan yow mu arafa kële di juróom-ñeenteeli weer di shahru ramadan al waaye am na yeneen yu ñu lëkkoo ngir won ne ñi ay mbokk lañu ndax soo seetlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na fi korite bàyyi na fi tabaski wax nañ sax ne ne wax na julli yi seen ñaari iida nga kon foofu itam mbokkoo nañ fa mbokkoo nañu feneen fu xëy ne waxoon nañ ko ca ba ñu nekkee ca weeru koor ak kor yi mooy ne ñaar yépp julli lañ koy tëjee ndax sunu wooree bay wori dana nu julli naka itam bésu tabaski ci it gi dañoo julli mbokkoo nañu itam ci nuróo gi ñu nuróo ci julli gi waxtaanoo noon fi naan waxtoonoon waxtaanoon naa fi ak yéen ci wàlli julli wax nañ ci jamono boobu ne ci julli bés yi def ci am ñaar ñoo xamante ni dañu nuróo ci nuruwuñu ak yeneen mu doon tisbaar ak takkusaan mbokkoo gi dana feeñ foofu itam ndax sallallahu alayhi wa sallam rasul sallallahu alayhi wa keroog ca Arafa ñaar la julli tisbaar googu ak takkusaan googu du leneen lu mu julli di daan wax ne dana am solo ñu seetlu ne julliwu fa ajjuma tisbaar la julli la tax mooy ajjuna ajjuma dañuy ràññee baatu kiy julli màndarga la ci julli ajjuma te keroog bu muy julli ci Arafat kenn mënu laa wax lan la fa sallallahu alayhi wa sallam jàng keroog kon tisbaar la fa julli boole ko nag ak takku takkusaan kon mbokkoo gi gën doolewu foofu maanaam soo demee ci julli yi nga xamante ni du faraid ay naafila la ñaar ñoo ci nuroo te nuroowuñu ak keneen ndax tabaski yi nga julli ak korite gi nga julli ñoom ñaar ñëpp bëccëg lañ leen di julli ñoom ñaar ñëpp ca yoor yor lañ leen di julli soo amee seetlu tuuti ñoom ñaar ñëpp ñaari rakk la soo gënee am seetlu bu ci nekk rakk la ak saar loolu lañ fi tuddee woon ñun màndargaay julli ndax waxoon nañ ne julli gi dëgg dëgg dëgg boo weesoo ñaari rakk la ndax foofu la Fatiha kese di nekk waaye li ko jiite lay màndargaal julli gi dafa am fatiha ak sar tabaski yi nga jëm fatiha ak saar ci gële nga fatiha ak sar falem kon mandar gi lañu indi té julli ga dafa am lu itam gannaaw ne bëccëg la gannaaw waxtu bi gannaaw nañu ko tëggee muy ñeenti rakka gannaaw nañ ko tëggee rakka bu nekk nga yaa ngi ci Fatiha ak saar ñoom dañoo am xutba moom lañu ñu bokk julli àjjuma ndax am na xutba bokk ko ak julli Boun diapè, jat di basalan. Wè, soy sed, amne lenen loun bok. Amne foun nou tis layo, te khen, ya e ulama yi set loun kon. Fou foun nou tis layo, te ulama yi set loun kon, da fè djel louti imamoun ma diyo. alayhi salaatu wasalaam xam nga am na solo baamtu ko donte lee waxoon nañ ko fokk ñu ràññaat diggante xel ak xam-xamu ya ulamaa yi ak yàlla subhaanahu wa taala miy wax ki la dikk du pour tey ak digi ëllëg la jëm sa nurihim la yàlla wax ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim ba fa laaya ba yegg dinaay faral di wax ne fa ñuy seet sayduna limaam alayhi salaatu wasalaam ak xëy na fa ko sama yàlla sama boroom def kon ak fa mu nekk dëgg-dëgg sallallahu alayhi wa sallam xëy na dañuy juum sa fan koy set boroom xam-xam yi feeñ balaa imaamul mahdi yu di feeñ li leen uute ak ña ja bay li imaamul yu feeñ mooy ne ñii dañu gis liñ leen doon wax moo xam dañ ko wax mu fés la dañ ko waxee luy niroog cax waaye boo xoolee rek laqar ci cax mi daf ci bokk nag laay bi ñu lay wax ne fii ci suratu albaqara soo demee ci ay téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benneel ba suñu borom subhanahu wa taala ne fi koor ak aj te ñaaree dinay rëcc wala may waaye yow su la yàlla baaxee nga xam sallallahu alayhi wa sallam seydina limaam digganteem ak koor su la yàlla dimbalee nga xam diggante sallallahu alayhi wa sallam seydina limaam waaye sax soo weesoo seydina limaam xalifaam seydina isa ak koor ñàkkul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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك فإذا أسلمتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ۖ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب لن ليتكي خمجة أجي مكة وخون ننتي دانتي دي لسوات لي دفكو لا ndax lii di ñëw waaye aji

ñaari sédé yi kenn du yàlla ku dul yàlla te moo yebal muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy jaamam di yonenta taxawal julli génne azaka weer weeru koor ak aji màkka ñaar yooyu mujjee su fekkente ne lëkkoo nañu ca ñaareelu ponk bi nga xamante ni mooy julli te mooy kennu diine kon li fi des mooy azaka ak kalimatu tawxid bi ma la wax sax xam nga am na yu bari yu nekk ci diine dafa laaj ak seetlu am na luy ci dindi dafay war nga xam ko ponku dina yi moo xam am nga xam-xam walla amuloo xam-xam moo xam boroom xam-xam lañ lay tuddee mbala la ko dafay war nga xam nu ñuy julli dafay war nga xam nu ñuy wooree mu war nga xam naka la ñu génnee azaka dafay war nga xam naka la ñuy aji mag yooyu ay wareef la yoo xamante ni soxlawul ngay doon boroom xam-xam pour mu war la ba nga nekkee jullit la la war waaye nag wax dëgg yàlla am na ci lislaam loo xamante ne yenn saa yi jullit yi ñooy sonal seen bopp ci lu leen yàlla sonalul ndax yàlla ba muy wax ne wama ma farad na fil kitab min shay xam na li muy wax am na lu xamante ni docteur bi ba ma gën a xam man mi wax ak yéen am na lu xam ne baykat ba ca tool ba fële di sànni pépam di ko xaar ba muy génn moo gën a xam man mi dëkk ndakaaru am na loo xamante ni sama doom jàng na ko ci daara yi umpale naa ko njàngam ko jàng ci daara yi may na ko ubbeegu moo koy gën a dégg li borom wax subhaanahu wa taala loolu ñu ñëpp bokkuñu ko la ca nekk mooy ku ca am lenn loo xam ñu bañ ko dugal ci wàllu ay baati nag yu kenn xamul dimbalee ko sama ko mu xam waaye fi ngay mën a yem ndax nag waru ko mu xam ko ni mu ko waree mu xam ponk yi naka leen di xàmme ak na la naka leen di taxawale moo tax ma ne lii mbégte lay doon ci laayeen bi mu xam ne ndekkete sallallahu alayhi wa sallam waxam ak jëfam yépp danga koy mën a delloo ci alquranul karim ci biir loolu laa ne nag loolu moo laaj loolu moo soxla tey seet settantal ngir dégg suma boroom subhaanahu wa taala la muy wax mooy li may wax ne foofu waxul ak ñépp dafa am ñu muy waxal soo bëggee dugg ci wax ji nag soo bëggee déglu فك أم يوخمنتني نينكو تي دوغل تي يالا مونو ظاهر لاي وخ لو من سيتال سبب نقل كسبب وخو مو مخو باتين مو هني لكلي نيو كور اك اجي ماك تي تشلايلو تي تشايلو لي مالا وخ سانخ waaye itam lëkkaleen leen fu nit mën romb te du ko seetlu muy aay bi ma lay wax téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci suratu al baqara yàlla di digle acc ak umra xam nga foofu am na lu am solo ñu koy laaj boo demoon ci suñu mbokku nasaraan yi ñoom yëpp mu ngi ko tuddee pèlerinage waaye même bu dee nasaraan bu doonee jullit dana ràññaatle xaj ak umra d'ailleurs bésub aj kenn mënu ca umra juróom-ñeenteelu fan bu arafa ci at mi mënuloo ci umra kon yàlla texal na ko ba pare yonentam texal na ko ba pare gannaaw bés boobu mën ngaa umra saa bu mu la neexee waxtaan waxtaanoon naa fi ak yéen ci loolu xëy na danañ ci dellusiwaat ndigam aajo woon na ko ci ba suma borom ba muy wax alxajju ashhuru maalumaat kon mu jël acc def ko du bés waaye ay weer du benn du ñaari weer waaye gën gaa ñetti weer ñu laaj sallallahu alayhi wa sallam mu ñetti weer la ma waxtaanee woon ak yéen fii ci wax leen ne ndekete bopp weer yooyu ca la imaamu Maalik génne àdduna waaye geenu weer yooyu fa la ñuy tëjee aji waajal génn àdduna ki mu ne moom la woon démb sallallahu alayhi wa waaye ma ne soo amee seetlu ni nga gis ne ndekete ponk boobu am na ñaari pàcc am na aj ak umra kon su yonent bi di wax alxajju umra ngeen jéggal ma alxajju arafa mooy bésu arafa mooy aj gi day am solo nga ràññee lan lay tekki ni bésu arafa mooy aj gi ndax nag aj gi mu commencé juróom ñetteelu fan kon gën ngaa yéex ci waxin ndax ma ngay dooree armal te bu ñu joree ak arafat ak gi jeexul ma ngay wëy ba fukkeelu fan gi mooy yow mu naar gi ñuy wax gannaaw loolu nag la fan yële di ñëw ayaamu tashriq muy ñetti fan yooyu su yonent bi sallallahu alayhi ne alxaju arafa te moom arafat defu fa sax bés bu mat ndax ci waxin mi ngi dugg ba jant bi tëddee ca la dem dana am solo ñu firim fàcce ko kooku dana am waxtaanam suñuy waxtaan ci mbiru aj waaye nag moom su waxee ne alxaju arafa subhanahu wa taala mi ko yónni ne alxaju ashuru maalumaat dana am solo firin fàcce naka la kii ñu yónni mënee wax benn bés ci arafat te ma ne bés bi sax matu ko moom ba mu demee ki ko yónni moom ni ñetti weer moo tax ma leen doon wax jaam yàlla yi ne Seydina Limaamu alxuraan la moo tax ma leen doon wax jaam yàlla yi ne ba Seydina Limaamu doon wax ñetti at ñetti fan gannaaw wax na fa ñetti weer te yàlla ne aj gi ñetti weer la wax na fay fan te muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne woon arafa bés bi la bés boobu mooy aj bi dana am solo nit ñi taxaw ci jéem a seet diggante yi lu fa ne rax si dolli su fekkente ne diggante makk ak Medina nga mu demoon gannaaw gàddaay gi fukki fan ak ñaar la fa def fii diggante bi mu jógee Yoof ak ba muy sanci Medina ma nuyu waale waa Kàmbereen mu ngi ko def fukki weer ak ñaar wax fa dëgg yàlla ci ñetti fan yi fële sa penku mu defoon ko ci xaar ba maanaam ca gorot ba juróom-ñeenti fan yi mu def ko ci yoon bi fii ay fan lañ doon wax may ñetti weer ya mu def ko ca gore juróom-ñeenti weer ya ca des mu def ko kër mbay si la fële ca ndakaaru balaa muy dem sañ ci wax fa dëgg yàlla lëkkoo diggante bis yi ak weer yi mu ngi bëgg a bari ma wax nag ne diggante aj ak umra kooku dana am waxtaanam bu ñu yeggee ci wàllu aj waaye fi ñu tollu boo delloo ci yel quraanul karim mi diggale aj daf leen teqale wa atimul xajja والعمرة لله كون نيت منا اتش تي عمرهول ني نيت مني عمره كسي يامفا وينك شريعة في نيوخ ne soo bolle ak ak umra may faral di wax nag ne ñaar ya charia boo ko gisee rek dafa am cëslaay ci alxuraan balaa ngay fekk cëslaay gi ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi duur ku moom boppam yonentab jàmbur la yonentab yàlla la te yàlla joxu ko li ñuy wax autonomie ba muy def di génn mbëggeelu borom bi subhanahu wa taala moo tax may faral di wax ne benn la ñuy wax ne sunna la te du sunna boo ko nattalee rek dëppawul ak alxuraan yonent bi defu ko bari nañ lañ ko sosal bari nañ lañ ko waxal nattukaay bi gën a wóoru nattee ko alxuraan ndax moom alxuraan la bu doon dund ci biir nit ñi ni ko naa ay waxe kon nattukaay bi fa ngay jiitu mu nga da dem ci alxuraan su déggul la mu wax nga dem seet ne ba diggam sallallahu alayhi wa firndeel na ko ci waxam borom jëfin sunna le messager n'a aucune initiative dans la religion yàlla la fi nekkal la la koy woon mooy bu duggee ci lu yàlla àndul daf ko fay yemale waaye waxtaan tey ma wax ne soo boolee acc ak umra dafa am lu lay war li doy waar mooy sarax bi moo la war li doy waar mooy yonent ba bu yahudi newoon nañu ne li ñu koy xàmmee sarax bokk na ci liñ koy xàmmee sarax waxtaanee war nañ ko fi ñàkkul nañ fi dellusiwaat ngir mu gën a gën a leer alladina qaalu inna allaha أننا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا برسول بنكتي سورة آل إمران رسول بابو نيوهني نيوم يهودي داي ديف سرخ واي سرخ قالكو يماندر قال موي سافر موكو لك ma ni foofu itam am na solo yonent boo xamante ni sarax lañ koy màndargaal waaye ponk bi mujj indi ci diini te mu def fa yoo xam ne itam buñ ca delloo buñ ca yeggee danañ ci dellusiwaat ndax yu doy waar a ngi ci ajug yonent bi waaye fii du waxtaanam kooku su fekkente ne nee nañu mën nga aj te doo ci boole umra dala doo ci fekk waaye boo boolee aj ak umra am na loo ci teg te la ca teg lay màndargaal yonent boobu ca la yawut yi waxoon la dana am solo ñu taxaw ci ñun waa ahlulaay dana am solo ñu taxaw ci su fekkente ne sarax googu ñu waxoon sallallahu alayhi wa sallam seydina limaam mi ne woon man la dem man la tey suñu yàlla dimbalee ba ñu gis lëkkalikoo gi am diggante tabaski ak korite C'est Limaam moomu ba mu koritee ba pare ba ñu sa tegee fukki fan yu xaw a doy dinañ ci ñëw sarax googu ñu wax ne moom la yewu di wax ne moom lu ñuy xàmmee yonent bi ñuy xaar su ca taxawee dana am solo ñun ñu ci loolu ngir set lëkkale gi nekk diggante korite ak tabaski ndigam firndeewul lëkkale gu nekk diggante Momadou ak Madiou waaye loolu moom xajul ci waxtaan bi tey xam naa bii di ñëw mbooloo yi ci topp incha allah dinañ yeggale suñu waxtaan ngir mu gën a leer ci àdduna ne sallallahu alayhi wa sallam benn du ay xiila wa xaala ñoo koy expliqué. تي قيل وقال سو فكنتنا وندموم سا خترا نانيكو فاشتنيبو ان قيل وقال قيل وقال منو خوت وني موم ندخ يالا مين دي يوم اللي جيت مو واحنا ني يونان تبي امول بن انيشاتيب كي واتن بي كوكو مو ديجي سنوريهم آياتنا في الأفاق كوكو لنوي خار كوكو لنيب دي خار كوكو لنيب ورا دلوان ندقم يالا اك يونان تنبي وصلات وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم